Euh, déggoon nañ tur boobu noonu euh, euh, daan ko gérer bu baax a baax mais bi Macky Sall nekkee au pouvoir dafa daal di changer am benn société boo xamante ni daal dina koy créer ñu tuddee ko société sniper sécurité donc loolu ku ne mën ci def taxaw seetlu ban grade la am ba war a mën a créer société bu ni mel ban grade la am ba mën a am tey privilège yi nga xamante ni moom la ñuy wax ni moom la am am logement de fonction am V8 am benn euh, équipe boo xamante ni mooy ànd ak moom jamono jii lu bëri nag wala ay jiya histoire yu bëri yu doy waar yoo xamante ni xew na fii ci Sénégal dañ ko ciy tudd parce que ñu ngi koy tudd ci wàllum recrutement de nervi wàllum 45 euh, euh, milliards d'armement bi ñu doon wax jëndoon nañ ko Euh, euh, daal di koy euh, teg foofee ca palais de la république aussi moom sniper ñu ngi ko ci tudd ñu ngi wax que mi ngi doon liggéey ak ay hommes d'état yu bari bari yu nekk fii au Sénégal. donc enquête bi jamono ji tàmbali nañ ko ñu ngi ay lëñ bët ay mbir yu bëree bëri di Didier ji Fulbert Sambou aussi ñu ngi ko ci tudd moom mi nga xamante ni moo di sniper donc nekk na nit koo xamante ni daal sénégalais yi. Euh, ñu ngi doon posé ay question mooy kan fan la jógee ban formation la def lan moo war a tax mu mën a am privilège yi nga xamante ni jamono ji moom la am nekk autant de question yi nga xamante ni ñu ngi koy posé wu enquête bi nag bi mu euh, jógee léegi gis nañ ni mu mujjee parce que daal dinañuy def benn percée perquisition euh, foofu ci këru far euh, Farba Ngom dan moo tax ñu jubali ci këru far Farba Ngom comme je disais la dernière fois on est 17 millions de Sénégalais pourquoi chez Farba Ngom dañu war a mën a def li nga xamante ni moo di perquisition boobu noonu ça veut dire que enquête bi moo yebal ñi nga xamante ni ñoo di enquêteurs yi foofee ca këru euh, ba Ngom donc nekk mbir boo xamante ni jamono ji Sénégalais yi ñu ngi ciy def taxaw seetlu bu baax di xaar dossier boobu naka lay mujjee xëy na ku ne war nga ci mën a am sa xalaat parce que nekk na actualité boo xamante ni je pense que sénégalais ñu ngi koy suivre Cheikh Oumar. waaw euh, comme ni nga ko waxee y a beaucoup de d'interrogations et de questions sur euh, la personne de Jérôme Bandiaki alias Sniper. Mm-hmm. Aujourd'hui, la justice a l'occasion d'apporter des réponses par rapport à ces interrogations des Sénégalais parce que bu yàggee see dafay dem ba nekk euh, mythe. Mm-hmm. am na benn film bu ma doon seetaan mu tudd l'homme du président. nga moom la ñuy yabal wala moom la ñuy yónni maintenant. la ñu nekk ci état de droit am na lu ñuy wax euh, présomption d'innocence mm. d'autant plus que euh, yi comme tu as sur les dix-huit millions de sénégalais ci moom la ñu dem mm. ne ko coppet yóbbu ñoom ñu ne ko coppet yóbbu bu ñu naan ko coppet di ko yóbbu mm-hmm. ci ban base lañ dem ban information lañ am yan mm-hmm. enquête la ñu teg ba mun ko ne coppet yóbbu mm-hmm. ginnaaw nag biñ ne ko coppet buñ lay wax coppet nag da lay am enquête eh, bi ñu def enquête dañu def li nga xamante ni wax nga ko oui pour des am ay information par rapport a l'enquête moo tax ñu doon def ay perquisition mm-hmm. donc gannaaw bi ñu defee perquisition ci kër gi mu dëkk ci boulevard de la République fële ci centre ville mu nekk logement de fonction mm-hmm. ñu fekk ko ak passeport diplomatique fekkoon ko aussi ak ngànnaay ngànnaay loo xamante ni amul sañ-sañu yore ko muy amul autorisation donc mm-hmm. déjà soo yoree ngànnaay te amul autorisation loolu yoon euh, daf koy jàppee comme délit donc beneen bi def nañ perquisition comme ci kër Farba Ngom c'est que les conditions yi ñu ko defee parce que bu ñuy def perquisition am na procédure bu mu laaj mais ñi dem defi woon perquisition aussi saa ñu ko waree def dañuy jàpp ni dañuy dem pour fouiller xool li nga xam ne moo jël ci wàllu preuve d'autant plus que amoon nañu information que mës na fa di di di fréquenter mhm. naa yooyu yëpp nag ci phase d'enquête préliminaire la woon après nag bu ñu ko jébbalee mandat dépôt dañ koy jox ab juge pour juge bi mën a xóotal mbir mi mën ko enquête mhm. maintenant dafa am ay charge yoo xam moom la ñu retenir mhm. contre sa personne charge yooyu nekk juróom mhm. euh, bi ci jiitu mooy dafa yore ngànnaay te amul détention d'arme waaw sans autorisation beneen bi ñu bindal ko trafic d'arme waaw trafic d'arme su boobaa bu ñu ba di la ko teg mooy wàll jaay ngànnaay wala mm-hmm. jënd ngànnaay loolu tamit bu ñu demee ba teg la ko dañuy indi ay preuve matérielle mm-hmm. yu wane ni ndax am nga ko mm-hmm. bu fekkee preuve matérielle matérialité bi amul loolu est-ce que dinañ la ko mën a topp loolu yoon moo koy déterminer beneen bi ñu tegal ko ci ci ci ndoddam mooy dafa am ay privilèges yu état yu mu warta woon am c'est-à-dire il a reçu des privilèges indus de l'état c'est-à-dire le fait que mu occupé euh, logement de fonction ak passeport diplomatique beneen bi ñu defal ko usurpation de fonction. Mhm. maanaam jël na cër boo xamante ni waru koo amee. Mhm. muy de l' usurpation de fonction beneen bi nga xam nag moom la ñu ngàll ci kaw mooy article quatre vingt. article quatre vingt ñu bëri dañu foog ni. mooy yëkkati kàddu mais ci biir article quatre vingt dafa bokk ci lépp loo xam dafa jëm ci wàllu sûreté de l' état. Mhm. et loolu nag ñi dugal article quatre parce que champ d' application bi euh, ñoom ñooy xool ci yan charge la ñuy retenir maintenant man euh, personnellement. <clears throat> wax nga ko sànq ci njëlbeen. Mm. dafa am ay mbir yoo xam ne daf fi am ci ban contexte la fi am muy ñaari contexte. Mm-hmm. bi nga xam ni <coughs> kii di Fulbert Sambou ak euh, nu mu tudd. DJ Badji DJ Badji nekk ñaar ñoo xam ne ñu bokk ci suñuy force de défense et de sécurité bokk ci wàllu renseignement. Mm-hmm. man ma jàpp ni mënuñu am ñoo xam ni ci renseignement la ñuy yëngu ñu mën a disparaître. mënul mm-hmm. nekk il va gëwuma ko il faut que ñu déterminer enquête donc bu ñu jàppee Jérôme. Jérém Bankaji mm-hmm. Bandiaky mm-hmm. xel yépp dafa jublu ci mbir moomu mm-hmm. pour mu jublu ci mbir moom il faut que ñu won la causalité c'est-à-dire est-ce qu'il y lien direct entre sa personne ak loolu nga xamante ni am na pour man enquête yi moo ko war a déterminer bu dee déterminer na ko ça nous permettra ñu mën a creuser dem dans le fond pour xam ñan ñoo ko jox passeport diplomatique ñan ñoo ko joxoon fonction yooyu ensuite kon ci mbir mi déggaguma ñu ne par exemple dañ ko arrêté pour assassinat déggaguma ñu ne lien tel ou tel donc mm-hmm. li ñu jàppagum ci ay charge à moins que li jëm sur la sureté de l'État il mm-hmm. faudra que ñoom dans l'opinion ñu woon ñu la moo jëm sur sur la mm-hmm. question de la sûreté de l'État l'un dans l'autre euh, le plus important mooy que justice se fasse am na tamit ay faits yoo xamante ni dañ fi dugaloon amnistie moo tax man d'accord ma amnistie mm. y a beaucoup de choses qui se sont passées des exactions et des exécutions Mhm. Exaction et exécution, c'est deux mots différents. Mhm. Parce que des gens ont perdu des vies, des gens ont fait des tentatives d'assassinat. Mhm. yaa ngi dégg Dame Mbodj porté na plainte. oui euh, plainte am duggagul ci dossier bi. est-ce que du ñu bàyyi ba mu dem ñu jël dossier boobu gàll ko wala dañuy jëlaat yeneen dossier gàll ko. l'un dans l'autre le plus important mooy les Sénégalais veulent être édifiés. Mmh. sur ce qui s'est passé réellement. parce que tolloon nañ ci contexte boo xamante euh, boo wàccee boo jaaree yoon bi yoon bee ngay jaar moo nami Pape Matar euh, koj nañ ko fi. moo ko maam bi xam wàcc. Euh, dóor nañ ko fi. Mhm. mu def live direct. Mhm. man am naa yu ma daj mais bon parce que boobu euh, ñëw naa taal sama oto fekk sama écrou yëpp dañ ko dindi. Mhm. nga xam ne ay benn benn écrou laa dese. jour boobu li ma may sans sax police ñëw ma ñëw ma dimbali parce que dama ñëw ba ci rond point grand théâtre ma gis pneu yi di deñ fekk policiers yi ñëw mooy période du troisième mandat boobu képp kuy génn dans l'opinion yow yaa ngi ci si ay risque péril yow mi ay parfois. boo fanaani fii fee ngay fanaani mm. euh, léegi nag. am na yoo xam man wax seeyal. waaw am na yoo xam ne nag fanaan sa kër waaw am na yoo xam ne su amee impunité la. Mm. maintenant moo tax wax dem d'amnistie bi dañ ci dugal lépp loo xam ne c'est lii à des trucs moo tax bi Ismaïla Madior Fall jógee ne affaire Fulbert Samb bi. Mm. Euh, c'est dans l'amnistie man bokk naa si ñi ne. loolu mu wax ko fenn. Hmm. parce que mënuñu ko lier après il est sorti pour dire que c'est un ah, lapsus. moi j'ai dit que c'est un lapsus révélateur. Oui. parce que am na loo xamante ni mënuñu ci c'est une question de l'armée quoi. Hmm. y a l'armée armée moom moom kenn ki ci armée la nekk. Hmm. ci service Sénégal lañ ne lañ nekk maanaam c'est des renseignements xam nga renseignement nit mënul opérer ci renseignement ba pare. facilement ñu ne ñu gëmloo ñu dafa disparaître il faut ñu lool lool maintenant su fekkee Jérôme Bandiaky est lié à à ça nañ ñu ko wax mu leer mais charge yi ñu teg gisuma ñu ne fii rey na fii bokk na si wala bokk si loolu nag na justice dem jusqu'au bout Mm-hmm. moom it lu mu xam mu xamal ko nit ñi. loolu man jàpp naa ni euh, l'opinion doit mm-hmm. doit doit savoir et qui est derrière Jérôme Bandiaky qu'est-ce qui mm-hmm. s'est passé qui lui a comme li nga question yooyu. lan moo kan la àndal ak kan moo ko jox sañ-sañ boobu. kan moo ko jox kër gi xanaa ñëwul rek fekk kër gi rek mu dugg fa. ku ko fa duggal. ci ban titre lañ ko fa dugalee si la une entreprise privée pour man euh, tey ku mu neex nga dem créer sa <laughs> entreprise privée de sécurité. loolu rek war na tax ñu réglementé ko. bëri na ay entreprise sécurité yu fi nekk ay étranger ñoo ko moom en commençant par yenn entreprise yu mag yu bëri yu fi nekk ay étranger ñoo ko moom hmm. qu'est-ce qui se cache derrière ces ces entreprises waxoon naa la fi keroog état dañ koy réglementer hmm. ku mu neex ngeen di sa garde corps da ngay jékki sa gis ku sol tenue xoola yow defal la fi drapeau vert on rouge ñoo taxaw ne la sécurité xamoo sax fu mu jógee hmm. donc yooyu yëpp yu ñu yu ñu yu ñu war a xoolaat. dëgg la lu ñu war a xoolaat la ah, nekk ay kàddu yu am solo Serigne on voit aussi que bi enquête bi ubbeeg léegi daanaka ñun journalistes yi. mën nañ cee xam loo xam ne sax xëy na mënuñu ko wax pour ne pas gêner peut-être l'enquête mm-hmm. mais am na ci ay cadre yoo xam ne jamono ji nelawatuñu am na ñeneen ñoo xamante ni te numéro 9 tamit il faut ñu numéro 9 man numéro 9 moom daf maa yitte non daf maa mm-hmm. parce que keroog bu ñu fi def conférence de presse police ki wax fii moo doon wax daaw. Mhm. <laughs> mais dëgg la. dëgg la mhm. waaw waa ji turam laa fàtte ki génnoon di wax pour police ren moo doon wax pour police daaw. numéro 9 boobu il faut ñu wax ma kan la. waaw waa ji yoroon arme bi ba ñu génn ne arme bi mu yore du arme de forces de défense et de sécurité. il mhm. faut tam ñu wax ñu ko parce qu'on a vu des gens booy bi ñu dóor bal bopp parcelle. comme de gens sont tombés morts à Bignona et cetera. nit ñi faatu du ñu ay weñ comme dirait Samba Dog du ñu ay yoo. Mhm. loolu il faut ñu déterminer ko. moo tax man loi d'amnistie bi dañ ko war a. après élection bi dañ ko war a tëbal. il faut présidentielle bi est bu jeex kii. élection législative bi waaw bu jeexee. mais ci enquête boobu Serigne Niang est-ce que bu ñu poussé ba ci biir mhm. du ñu xam. kan mooy numéro 9 boobu kan moo recruter woon nervi yi kan moo fayoon pour ñu recruter nervi yi ak véritablement ñan ñoo nekkoon ci ginnaaw. en tout cas bon euh, yooyu yëpp c'est vrai mais xam nga balaa may ñëw fondamentalement ca la mhm. dafay jot ñu am lu ñu fàttali tuuti. surtout en réalité. réellement en réalité. parce que xam nga Jérôme Bandiaky yi <laughs> kenn mënu ko wax Salma. Mhm. te doo convoquer li fi xewoon. waaw contexte bi fi xewoon. Mhm. contexte bu doy waar. bu xale yu bëree bëri ñàkk seen bakkan. ñu gis fi ay violence ay meurtre. ay assassinat ñu jigi-jigi ñu la ay nit disparaître nañ mm-hmm. comme ça mm-hmm. maintenant teg bi ñu ko teg loxo tey